ne ministère bi nga xamante ne mooy suñu ministère de tutelle muy ministère de la communication tey jii euh, suscité na ko déjà par rapport ak internet mais par rapport ak également digitalisation fi mu toll ñu boole ko ci li nga xamante ne moom moo di ministère am est-ce que c'est pas trop ale est-ce que mënuñu ko woon euh, écarter également pour euh, mettre plus l'accent sur l'informatisation waaw d' abord balaa may parce que sànq sa question c' était euh, très spécifique ci affaire jigéen ñi question bi aussi c' très spécifique ci communication bi mhm. balaa may ñëw ci loolu il faut partir du général jëm ci particulier ouais. Mhm. c' est à dire bu ñu gisee attelage gouvernemental bi ban jàngat nañ ci def première jàngat bi mooy un gouvernement comme li ngeen wax restreint wu contracté mm parce que kuy rappelé wu dernier gouvernement bi ñu am muy 8 mars c'était avant élection présidentielle seize jours avant élection boobu dañoo regrouper ay ministères parce que mënuñu woon nommer ay ministres yu bees moo tax ñu amoon 34 ministres mais en réalité structure bi nga xam ne moom la Macky Sall conservé depuis lu yàgg mooy 39 ministres bu ngeen dolle delloo ci gouvernement wu 11 octobre 2023 39 ministres la woon dañ doon am 34 ministres avec seen portefeuille ak cinq ministres auprès de ministres wala nga ne ministre délégué aujourd'hui si on passe de 39 à 30 ministres et secrétaires d'État mooy rationaliser nañ 9 ministres si on passe de 34 ministres avec portefeuille jëm ci 25 ministres avec portefeuille mooy ba léegi rationaliser nañ 9 ministres donc loolu mooy rationalisation bi ñuy wax de l'administration ça commence d'abord par ci kaw mooy le gouvernement dama ciy jël ay exemples yu patent bu ngeen jëlee énergie ak mine dañ ko boole. énergie ak mine désormais dañ ko boole parce que loolu yëpp ay ressources extractives la ah, extractives la. souvent c' est le même modèle contractuel soit c' est des contrats de concession ou des contrats de partage de production et benn même positionnement stratégique nañu am par rapport ak réew mi li mu am ci ay ressources stratégiques muy or bi muy zircon bi muy fer bi muy pétrole bi muy gaz bi ñu mun cee am maximum de revenu mais aussi dans le domaine du contenu local sénégalais yi ciy yëg ci seen bopp mais mu générer aussi ay emploi bu ngeen jëlee ministère emploi ak travail dañ koo boole lu yàgg emploi dañ ko doon boole ak jeunesse alors que le président Ousmane Sonko yàggoon na wax ne il était contre la catégorisation de l'emploi emploi des jeunes c'est politicien emploi rek la bu industrie bi doxee agriculture dox élevage dox pêche dox ñàng mi jaar yoon formation professionnelle jouer son role insertion day am ñëpp am xëy Donc on, on est passé du stade de la catégorisation de l'emploi vers une une une optique boo xam ne emploi dañ koy jël de façon générale bu ñu nee emploi ak travail nag dañoo wutee mais dañu koy boole xam tax emploi mooy nañ fexe ba nga am xëy travail mooy boo amee xëy naka nañuy fexe ba say droit ñu respecté ko nga am droit au syndicat say contrat de travail yi nga am nga ñu respecté ko nga xam ne bu CDD joxee nga dem CDI mais aussi lu jëm ci booy liggéey l' assurance assurance yi nga war a am euh, sa souscription ci obligation sociale yi mais boo retraité wee la sécurité sociale donc transition entre l' emploi et le travail nit ki bi muy utee xëy ba boobu muy retraité wee donc cette fois ci dangay gis une cohérence axiologique nga jël euh, industrie ñu boole ko ak commerce dañ doon wax transformation industrielle wala renouveau industriel cette fois si ñu jël industrie boole ko ak commerce parce que dafa am ñetti secteurs yoo xam ne ñu ñëpp xam ngeen ne moo yor économie mooy secteur primaire agriculture pêche élevage mais ñooñu bu ñu jëleewee ci nature bi industrie mooy transformer mais le secteur tertiaire mooy assurer la commercialisation donc si on euh, fait une articulation entre l'industrie et le commerce il y a une jonction ñu boole tout le secteur du transport muy transport terrestre ak infrastructure muy transport aérien mm. muy transport euh, ferroviaire da nga xam ne le véritable cap c'est de miser sur la sur le transport ferroviaire pour économie bi dëkk bi dox mais aussi pour développer lu ñuy wax l'intégration sous-régionale avec dëkk africain yi mm-hmm. nga xam ne train yoon jëm fii ba Bamako et cetera donc transport tey dañu jël secteur bi yëpp boole ko loolu je pense que c'est une rationalisation qui est très nga jël le ministère de l'urbanisme ñu boole ko ak ministère euh, des collectivités locales parce que dañ doon boole aménagement du territoire ak collectivité local après ñu jël urbanisme def ko ministère boole ko ay cadre de vie ay hygiène publique et cetera wala habitat cette fois-ci urbanisme moom nañu boole ak aménagement du territoire ak collectivité local parce que naka nañu war a occuper espace bi fan mooy zone industrielle fan mooy zone forestière fan mooy zone touristique fan mooy zone bi nga xamante ne ay infrastructure ñoo fa war a jàll à travers le domaine public euh, de l' état parce que yàlla domaine public naturel mais yàlla domaine public artificiel mooy fi état di tabax tamu ñëpp bokk ko comme tali yeeg yooyu naka nañuy occuper sol bi ça c' est l' du territoire te loolu ñan ñooy bras état mooy l' état qui présent partout te loolu pan yi mooy la déconcentration muy gouverneurs yi préfet yi sous préfet yi les services déconcentrés de l' foo dem fekk fa benn perception foo dem fekk fa benn euh, centre des services fiscaux foo dem fekk fa benn école wala benn IEF wala benn inspection d'académie mooy l'État qui est présent partout mais beneen pan bi ëpp solo mooy les collectivités territoriales donc quand on parle d'aménagement du territoire ñan ñoo teew fépp ci turu État y a les services déconcentrés mais y a les collectivités local te ñooñu ñooy sièges yi nga xamante ne foofu la askan wi di teew à travers des conseils municipaux donc boo jëlee collectivité locale nga boole ko ak aménagement du territoire boole ko ak urbanisme en réalité mooy xam nga fi nga jëm ñu boole jeunesse sport ak culture yaakaar naa bii nañu gën a regrouper ay ministères yu bëri ci benn ministère je pense que Mame Birame wax na ko sànq parce que les politiques de jeunesse dans ce pays dafa am benn rupture boo xam dafa war a am wax naa la sànq jeunesse ak emploi nañ doon boole te lépp lu ñu doon def ci politique d'emploi pour jeunes li ci ëpp ay mille jeunes nañ doon wax ñoom la ANPEJ wala Prodac accompagner pour ñu am emploi li ci des on mise sur l'auto emploi mais cette fois-ci ban gis-gis nga am ci ndaw ñi culture du musique kase te musique lu am solo la l'art plastique est là le livre est là donc bu ñu nee jeunes yi naka ngay def ba yokk seen culture di nga bu ngeen demee France ngeen gis le gouvernement de Gabriel atale bi mu nekkee ministre de l'éducation dafa insister ci ñu delloowaat théâtre à l'école keroog maa ngi koy wax suñu meetingu mbuur bi quand on parle des jeunes souvent dañuy raté euh, ni ñuy yaatalee mbir yi parce que ñetti jeunes ñoo am dafa am jeune boo xam ne c'est un jeune enfant ki juddu ba ba muy amee quinze ans ñooñu xam nga ñaata nañ ci population Sénégal trente neuf pour cent mmh. juróom benn fukki sénégalais yoo jël ñeent yëpp ils ont moins de quinze ans wala quinze ans au plus ñooñu boo fexee ba à travers ministère de l'éducation ak ministère de la culture ak ministère de la famille ñu jox leen seen cër mais ji def ci ñoom protection bi ñu war a def ci ñoom loolu liggéey bu am solo la li ci teg nag mooy jeune adolescent yi jëm ba 17 ans 15 ans 16 16 ans 17 ans ñooñu ñu ngi toll ci âge de la puberté à travers les canons de communication à travers les nouvelles technologies tey ñun ban ban gis-gis nañu am suñu ndaw ñi nan nañ war a mel après nga doog a dem ci jeunes yi nga xam ne léegi am nañ 18 ans damay wax ne ñooñu ay paa lañ lu tax ma ne ay paa mooy paa bi am 90 ans bu yoree carte d'identité voté yow nga voté yow jeune bi am 18 ans soo defee bàkkaar ñu bindal la ko moom mu defee bàkkaar ñu bindal ko ko sur le plan pénal yéen ñaar yéen a yam responsabilité pénale maanaam boo defee même infraction même sanction yi mën na leen ci fekk kon kooku mag la jeune boobu noonu lu ñu faxe lu ñu war a def mooy bu weesoo cycle fondamental ba pare mu am formation professionnelle wala mu dugg université ñu former ko li ci des nag mooy jeune adulte yi mooy souvent jëm vingt cinq jugee trente ans jëm trente cinq ans nga xam ne bu ñu boolee pan wu zéro ba trente cinq ans ñun ñooy soixante pour cent population bi mmh. ñeent yoo jël ñetti yi kon les politiques de jeunesse son des politiques transversales la participation citoyenne naka la jeunes yi war a def pour bokk ci effort de développement bi te le président Ousmane ko wax na ko dafa am ñaar yoo xam ne weesu na te boo xoon benn bi am beneen boo xamante ne dañ ko dañ cee war a insister am na loo xam ne dafa weesu fal président di ko bàyyi naan élection laay xaar pour sanctionner ko bu dee def na lu dul yoon déedéet suñu bët da nga ko war a teg ci moom di alerter parce que la démocratie elle deuxième bi des bi weesu ci àdduna mooy fal président de la république toog di xaar est-ce que dina réussir wala dina échouer ñun suñu génération dañu am une responsabilité historique participer à l'effort de développement loolu moo tax ngeen gis campagne de set setal yi jeunes yi def mm. te ñu koy rafetlu bu baax baax di leen jox dig dajee ne à travers la JPS que je dirige dinañ accompagner l'État du Sénégal le gouvernement du Sénégal ci lépp lu ñuy sumb te soxla ci participation citoyenne dinañ leen wax suñu gis-gis te toutes les 46 coordinations départementales de la JPS que je dirige, toutes les sections communales de la JPS sont prêtes à travailler avec le gouvernement du Sénégal pour politique de développement yu ñuy def jeunes yi def ci participation citoyenne donc loolu mooy côté jeunesse sport nag du football kese donte ñun bëgg nañu dem jël coupe d'Afrique bëgg nañ jël dem coupe du monde sori mais le développement du sport à l'école tey est-ce que dañu war a miser sur nawetaan yi wala dañu war a dekkilaat UAS yi ci école yi compétition entre école yi def ko mu nekk culture d'excellence pour nga def culture les arts martiaux est-ce que état bi waru ko accompagner pour parce que dafa am lu muy def ci discipline nu nit am lu ñuy def ci ci ko ci doom aadama donc bu ñu jëlee ministère yooyu articuler ko bu kenn jàpp ne dañuy dajale rek pour ne ministère yi dañ ko restreindre mais dafa am benn politique bu leer benn vision bu claire bu ko sous-tendre. liñ ko jalal bëriwul. lu ñu ko. jalal bëriwul. bëriwul. parce ci ci ci maanaam importance bi ñu am laay waxee. parce que mm-hmm. rationalisation c'est bien mais par rapport ak importance bi euh, jeunesse ñu bare bari sax déjà euh, xëy na ay tur ñu ngi ko doon génnee je sais que nii gis nga ko bu baax baax ñu naan ku mel ni Ngagne Demba Touré ak ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. ñu jëlaat yokkaat ci sport nga xam ne. loolu moom bokkul ci contrat bi. <laughs> oui je bokk nañ ci ñi fi ëpp problème sport. coow yu kii ak mm-hmm. football beeg ñoom seen. discipline yi comme li nga wax arts martiaux ak yu ci baree bari. beneen bi muy culture ñoom bitee ak mbokkam yi nga xam ne ñoom itam bëri na lu ñuy kii du lu du lu du si oui un secrétaire d'état pour la culture oui oui je sais oui mhm. c'est que xam nga ministère également ma yóbbante la benn moo di euh, yi nga wax ne pour la jeunesse également yaa ngi wax JPS yi nga jiite mais comment faire également pour fédérer le Sénégal parce qu'il y a des jeunes qui ne font pas de la politique qui ne font pas partie de votre c'est ça euh, loolu moo tax ñuy rafetlu initiative yi amoon ci secrétariat yi bëri na des responsables de PASTEF ci m'ont interpellé pour me dire que loolu yéen GPS yéen a ko war a yor man leen dès depuis début semaine lañ ci xalaatoon pour def ko mais on a insisté sur ñu bàyyi élan citoyen bi. oui tàmbali ko après ñu ngi ñëw accompagner xam nga lu ñuy bañ. bu ñu ko defee yëfi parti politique. ak yëfi mouvement de jeunes parti politique rek. Mhm. yeneen Sénégalais yi téye alors que ñun dañu war a nekk ay partie prenante. Mhm. am na ay plateformes yoo xam ne yàggoon nañ ay luttons contre l'indiscipline au Sénégal ci loolu yàgg na. est-ce que da nga jàpp ne parce que yaa jiite mouvement au jeune parti yow rek yaa gën a légitime pour jouer loolu boobu je pense que c'est le c'est le moment de faire une synergie populaire même COJER bu APR suñu bëggee accompagner ñu ci loolu nous sommes prêts et nous sommes mm-hmm. li ma bëggoon wax ci nag ministère yi xam nga tey ministère c'est une fonction de coordination c'est ça les directions la mooy seen rôle les directions générales la mooy seen rôle mm-hmm. souvent les yeneen état bi comme par exemple agence. bu ngeen jëlee emploi xam ñuy wax ministère de l' emploi et du travail. Mhm. mais li ëpp ci politique d' emploi bi du ministère boobu moo koy def. xam nga koy def lu ñu tuddee ñu suñu programme. CAGET mooy grande agence gouvernementale pour l' emploi et le travail nga xam ne structure état yi doon yëngatu ci emploi yi ñu bëree yëpp ay ANPEJ ak ay PAPEJ ay leneen ak leen li ñu bëree yëpp ñu boole leen lépp tuddee ko grande agence gouvernementale pour l' emploi le travail le programme gunge. nga xam ne jeunes yi am formation ba pare war a insérer wu dañu am benn programme bu ñu tuddee programme gunge le fait que ñu ne curricula wu université ak institut de formation yi désormais dañ ci impliquer le secteur privé pour ñu bokk ci ñu définir curricula yi pour mu am benn adaptation entre li ñuy former nit ki ci université ak barabu formation yi ak la ñuy la ñuy ut ci entreprise yi. Mm-hmm. xam nga agence boobu noonu <laughs> da ngay naan ministère mais agence bi ko ëpp doole donc juste pour dire ministère c'est une fonction de coordination li am solo mooy yeneen structure yi nekk ci ministère bi ak yeneen structure yi nga xam ne day dépendre ci ministère bi parce que société nationale yi ñu ngi fi les offices ñu ngi fi les établissements publics ñu ngi fi te yooyu yëpp ci ministère bu nekk dañ dañ dafa dañ ko war a renforcer mais teg fa ay nit ñoo xam ne ñu compétent nañ mais ay nit ñoo xamante ne am nañ intégrité ma continuer ci yeneen ñaari ministère yu ñu boole mooy tourisme ak artisanat mm-hmm. te loolu c'est extrêmement important parce que booy jaay la destination Sénégal lan ngay jaay li ñu moom lu ñu xarañee li ci tegu mooy li ñu contracté agriculture ak élevage sànq rek bi may ñëw maa ngi déglu ci rajo bi acteur u secteur bi di saluer loolu ne enfin mu am benn link bu leer entre l'agriculture et l'élevage donc au total on a rationalisé neuf ministères te bu ci nekk rationalisation bi tëbuñu rek rationaliser mais dafa am benn cohérence bi nga xam ne moo ko sous-tendre loolu laa bëggoon wax globalement sur nu ñu ko rationaliser li ci tegu nag mooy profil yi parce que rationaliser nga ñan nga teg ñu ñu teg ay nit dañ ñoo xam ne presque à cent pour cent presque laay wax seen secteur d'activité lañu nekk c'est extrêmement important mooy nekkatuñ fi pour ne ci parti politique laa nekkoon am naa telle légitimité dama war a nekk Euh, ministre damay joxe exemple dafa am ku ma woo ne ma lu tax joxuñu la ministère de la jeune comme ni nga ko waxee. oui oui je lui dis loolu bokkul ci contrat bi président Ousmane Sonko bi ma koy découvrir 2016 di ko seetaan ñu dàq ko impôt domaine ma xam ko 2017 ma ñëw dugg Pastef contrat am ak man mosul nekk boo liggéeyee ci partie bi boo xeexee pour ñu jot ci pouvoir bi lii nañ lay jox contrat boobu musul nekk ak kenn contrat bi mu am ak moom am ko. président Bassirou Diomaye fay mooy ñu defar Sénégal ñu tabax Sénégal suñu tabaxee Sénégal man dinaa ci bénéficier wu directement xam nga wax nañ ci priorité yi dinaa ci ñëw réduction coût de la vie ak amélioration pouvoir d'achat pouvoir d'achat ñaar nga koy améliorer soit da ngay yokk revenu comme salaire yi wala nga subventionner pour prix yi wàññeeku tu peux faire les deux à la fois donc il la méthode active et la méthode passive mais bu ñu yokkee salaire yi man may fonctionnaire du ma ko du ma ko yëg li doon jar cent france su jaree fukki dërëm duma ko yëg contrat boobu laa am ak ñoom bu ñu assainir les finances publiques alal bi bi waroon jëm ci man tam waroon dem ci santé bi structure boobu noonu sama doom war fa dem faju sama soxna war fa dem faju man dama koy yëg maatam bi ñu ma affecté parce que semaine prochaine incha allah je compte jël dem jëli sama poste à maatam su may dem. heureusement Macky Sall léegi dem Fouta yomb na parce que Ila Touba moo tijji Fouta. Mm. on le veuille ou pas 5 heures 6 heures de temps nga yegg nga yegg Matam maximum. bu ñu développé infrastructure yi ma mën a accéder sama lieu de travail bu ñu fexee ba li ñuy wax l'équité territoriale am. ba mm. territoire yi maatam ku fa nekk du ñee ku nekk Dakar man du ma ànd ak sama soxna ak samay doom yóbbu leen Matam nekk fa installé wu comme fonctionnaire contrat boobu nañu am ci teg ñun ñun ñi nga xam ne côté finance bi rek pour pour pour balaa ma koy fàtte. dafa am kuñ fa teg. inspecteur des impôts avant boobu a daal chapitre boobu ne ñun ñi xam ne. Euh, entre guillemets ay responsable nañ à Pastef muy coordonnateur départementaux yi. Mhm. yu GPS parti bi. muy coordonnateur communaux yi. muy ñun membre bureau politique muy ñu bokk ci cabinet président Ousmane Sonko muy commissaire scientifique yi muy coordonnateur national mouvement yi. dañu am obligation bañ a décevoir sénégalais yi les sénégalais seront vraiment déçus bu ñu gisee si ñun kenn si ñun muy mer wala muy frustré parce que joxuñu ko poste de responsabilité hmm. loolu mooy kon ñun dañu am une conception jouissive du pouvoir kon rupture bi ñuy woote amuñu ko de Ayoba qui disait tout à l'heure que ne ministre yi ñu nommé gisuñu ci waa Pastef ñu bëri mais c'est ça hmm. que contrat bi nee naa loolu bokk ci woon te le président Ousmane Sonko d'ailleurs ku ko ci mere ku ko ci mere wala nga mere si Bassirou Diomaye Faye président république mooy ñoom yàgg nañ ko wax ils ont toujours dit que ñëwuñ fi pour séddoo pouvoir ils l'ont toujours rappelé li ci tegu nag mooy yaakaar naa gouvernement bi ku ci bokk dañ laa war a yërëm dañ laa war a ñaanal moo tax man sur ma page Facebook félicité wu leen dama leen encouragé mhm. parce que en réalité président wax na ko liggéey moo fi am coono moo fi am jouissance moo amu fi jubal moo fi am kon ñun nañu dëfal sénégalais yi mais nañu fixer le cap ñun responsable Pastef yëpp bu ko defee militants yi adossé wu su ñun mooy ñi ñi lay teg pression ci ñi lay jege ci ñi xam sacrifice yi nga def mais yow li nga def nañ xam xamul ñeneen lu ñu def d'accord ñaareel mooy li nga def ba nga koy def defoo ko woon pour fayeeku da nga ko defoon pour sa réew jag tey réew mi am na rupture nañu accompagner état bi pour mu liggéey. d'accord pour le bénéfice. on va procéder maintenant aux, aux questions réponses ah. par rapport également ba léegi sur euh, les portefeuilles Issa ak euh, importance bi nga xamante ne bu ci nekk ñu ngi koy xaar. oui dafa am euh, ñaar yoo xam ne daf ma ci xëy na man ñoom laa ci gën a tiire xëy na à part yeneen yi des muy bu mel ni bi ñu jox maître Ousmane Diagne.